ولا تعد عن هدي الحبيب المسمد تنل كل خير بالدوام المصمد سنوف المعالي أكملت لمحمد ولم يحوها غير ولم يحصها محسن وأوه أقمكم إلى هدرة الهادي الورى وأزلكم محبة صف قلوب أصلكم حبوا ليسمع الصدور أفدكم مدائح فيها لل ولا مترفه الشوق مروي ولوز به فالشر لما يصيبكم متى تبده المختار هبا يصيبكم هلم وهاو قلب واعن لكم بدأ محمد ولحبه قبل الهادك كجربتي فوالله ما أظهرت من حب أحمد سوى بعض بعض كل أعدائنا يدفي وغاية سهولي حيثما كنت قربه به أرتدي سهولي وحسبي حب شيخ مروي وكم مؤذن الأعياء فنحى وجبه أشى فيه أفراد الفضائل ربه وحسبك ما شيخ مرمي ونحن بحمد الله حقا نحبه حباه برشات الفضائل ربه وناهيك ما في الناجم من كامل المدين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان sooy def lu baax faaw yàlla def lay fay lu baax Thierno Seydou mi di doomu Thierno Mamadou Bane Thierno Mamadou Ba ni ñu ko dubbee ni ñu ko tuddee doomu Thierno Bachirou Tall xalifa maam Cheikh Al Hadj Omar di Thierno Saïd waaye yàlla dafa dogal bàyyi xale bi di Thierno Mamadou njabootu Thierno Bachir yëpp ay soppeem la loolu la ko yàlla defal moom ak rakkam Bachirou Ba tabaarakallaahu nga xam ne moom it Bachirou di rakku Thierno Mamadou di doomu Thierno Hamidou moom it wuy juróom. ni ko tuddee sëriñam di Thierno Bachir mi nga xam ne moom la ñuy seetu fii yàlla ko yàlla indee jàmm kon ñaari xale yi rek lañ bëgg a bàyyi ñu baal ma sax ci turu xale ndax ku mokkal alxuraan kenn waratu laa xale ndax koo xam ni téere koo xam ne boo ko mokkalee ëllëg yow ak yaa ngi romb loola juróom-ñaar fukki junni ci sa wàllu ndey romb loola juróom-ñaar fukki junni ci sa wàllu baay ngir téere bi nekk ci sa dënn jabaratuloo xale waaye bàyyi xale bi toog di siidi aani bax bàyyam di aani ba mi ngi nii Thierno bàyyam ne la mi ngi yónnee ci yow kàddu ngërëm ak cant di la wax ni defal nga ko loo xam ni wéy ci moom lool dina ñaanal yàlla yàlla fi yàgg ci wér su ko defee xale yi rek la ñuy dugal bu ñu noppee nag ci la ñuy programme bi surtout Cheikh Oumar a ngi nii toog tubaarakallaahu di Cheikh Oumar Tall di soppee Thierno Hamidou Imam Moussa Gueye ñi ñuy toog tubaarakallaahu di borom xam-xam ku nekk xam ko ak Thierno Hamidou Imam Abdoul Aziz Fall ñi ñuy toog tubaarakallaahu Imam Abdoulaye Mbaye nga ne la toog Imam eh, Babacar Mbodj mi ngi toog Imam kenn ku nekk sa tur ak ci sa sant Imam Mouhamadou Mokhtar Tine tubaarakallaahu su ko defee rek. ñu tàmbali programme bi incha allahu rabbi ndax dañu ni koy seetaani fii ci zawiya bi mbir mi direct la ñu ngi gërëmaat 2STV ñu ngi koy def direct waa Asfiya yi ñu ngi koy def direct ak waa Malikia TV ak waa Safina TV ñoom ñëpp tabaarakalaaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant loolu tax ñu bëgg profité rek pour lii xew ci zawiya bi adduna bi yëpp ànd ko ñun di ko seetaan ndax lii yëw la di ñaan yàlla yàlla fi yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Mauritanie ñëw nañu waa Mali ñëw nañu waa Fuuta ñëw nañu kenn desul tubaarakallaahu yal na yàlla fay nañ yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñu dugg rek ci liggéey bi ndax ñu mën a gañ a tànn maa ngi jégalu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu encore Mokhtar jazakallahu xayran yal na yàlla fay la ak bi ngay lim imaam rek imaam Ahmad Ba المعلم فريتا زاوية مارتي رصعيد نورتال مؤمن مقفي آه، أستاذ محمد كي مؤمن فتبارك الله مقفي نيكو وخير آه، بندرا بياخد انت حرفا مقال اجارام يمي بي شفتوتي كو على اني ارزقني ان هيك ادودال نال سوكابي ديلو ريب القران الكريم وقنا خصوصي ويني دنياما لكن هاجرو نبي تلس باستو e yeeso ɗen tan ngal fof ɓe defto toon hikka noon ceeɗo wi yen mbaɗir ni ɓe defto ɗo taggal nde yimɓe mbaɗi asrul jumaa yimɓe juuɗe futuro ɓe defto ɗo nde wonno ko rindudirde e temps meɗen jangono wayata faɗde ni matema wonko gasi hande on saaha jango kala ko allah hetni mbawen ɗaɗude ɗum noon sukaɓe ɓiɗo ɓe noon oɗo wiyete ko siri ali ba ko ɗo e dunal ngal o jangi ko ɗo kadi allah arsigiliri mo Ah, o reeni deftere allah teddunde nde jinnaɗo makko nan caggal ɗa nde wiya aali ba ko ɗo o juulata waktuji makko fof ko minen juuldata ɗo mbaddata ɗo ene haɗatul juma ko musidɗo tinniɗo kankone ko ɓiyi ko ene jeeya e maɓɓe renɗo qur'ana ɓe one ko ceerno saidu ɓan mo ceerno mouhammadou ɓan mo ceerno men afo ceero haamidu wadde hande ko taani ko jooɗiɗo ene refto rawane kadi sen tefti sen teskima taani ko kadi ɗi ceero momodo man reftinomo to kadi rawane eɗen gandi ɗum ko moƴƴere allah ko allah ene moƴƴere ceerno kala hitande eɗen jiya ko way noon yo allah ɓoyde ɗum saabu barke abdoulahani lazim jangginan mawɗo wi onon ko ceerno abdoul asis ɗem ko kanko resnadugal ngal o gonɗo jooɗi jom ɗiɗo daneeji abdoulasis dem ko kanko jangeenoɓe haa allah arsiginimo ngal ɗo teddungal yo allah yetti e juuɗe makko e reenoɓe qouran taw ko heewɓe heewɓe kadi hitaane eɗen mbaɗɗu so barke alqouranil adim ene teddiniranon heɗanaade ɓe e ndefto yeeso al imamul acbar ustage ibrahima lan e ɓe heɗanoɓe ɓe ndefto inchallahu taala no hatta mohtar wi so ɓe neftima haa gasi ko on sahaa noon naatatten programme jewteɗe ene programme o foti yaarude e ko ciftiftuɗen e ko balleteɗen ɗo noon haande allah abbe jiyaade allah mo coynoɗen o hono ceerno men jinnaaɗo men ceerno mohammed min bachir mumtana ɗaha mo mawlana cheikh alhadimol fouti radiallahu taala anhu alano mbaɗeten jooni so wonaa ɓe defto ene aɗo raftaade liyo hon leegi ren mowɗini ñaari xaley ñoom ñoy tari ki leen doon jàngal mu ngi tudd Aziz Dem léegi nag ñu ngi teralee déglu bi di ak imam Ibrahima la moo leen di déglul joxe na ndigal léegi siidi naam dañoo wattu yi du ñoo xam ne dañoo wàccee moom Thierno Ibrahima naam borom ijaaza la ku wattu alquranul karim la te wattu na ko tamit jamono ji xam ne ne wattu yombul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 love. para incentivar ويلي على يوم اتيرنا من شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه نيغي نانغرم يالله سبحانه وتعالى يالنا نيكي تسوني مسري شيخنا التجاني رضي الله عنه شيرنوي انبيا بندراب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وي أموي إن فخ أهلا وسهلا مرحبا إنكم أهلا تيانا ويني دلال غنجي دلال نيب تسجكر e inde ceerno men jinnaɗo men khalifa men hono ceerno mouhamad bin bachir muntaqaɗa hamo mawlana cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu anhu mu ngi ñuy dalal ci tuuru suñu woyjur suñu sëriñ di suñu khalifa di mawlana ceerno mouhamad bin bachir muntaqaɗa habo cheikh oumar mo ganduɗa ko on joɗani ɗen ɗo kiga xam ne moom lañ fi toogal ko woni ɗo ko fof ko kanko mboɗen ndi fine moom la gila e daara o mo tambede daara ji e kala kone waɗe e daara he an mboɗen ndi ñuy daara ji e kala ko feeñi e daara he an mboɗen ndu daara ji e e ko feeñi ko ni ko suuɗi ko fof ko kanko lu nabbuli ak lu feeñni yëpp ceerno Mouhamadul Bachir la haa e zaawiya o rawatina ci zaawiya bi kala almaami mbaɗaaɗo ɗo ko kanko yamiri yo won mboole kun fi tan nga nekk imam moom moo joxe ndigal ndax nga nekk imam تفسير القرآن وحذف مختار السلة ونده كم كي تكتري مراي نيا تفسير القرآن الكريم بين يرتوير وكور بي حذف مختار دي كنف ممتر محمد بن بشير موضوخ الدقل من كنف ساح الفنين النقر يسمان بودين كين ابن سطول on o wadata ko kono no joomum waɗatani mom da fay def comme ni boromam di defee kanko ceerno ko kanko jogini en ɗo woni fof on ceerno mowoni fi toglote moyɗen hitande fof o ara o yurnito o ƴewto golle ɗe no jaari ak mune mo ñawfi mo seet yer holni liggey bigi deme o duwinoma kadi o ɓeyda du'a o ñanonna wayit mo dolli ñaan kadi o yiyodira e banndiraaɓe juulɓe ɓe mukisen jagooto julɗitki so tawi o yiyodiri e maɓɓe ko nafoore tan woni heen bukisante julliti tawi njerin mooci nekk o wii gooto haalinaani konngol ngol konngol konngol konngol mawngol am na ko wax sànq benn kaddu nee na kaddu googu kaddu bu o wi kala kuccodurɗe e khalifa mawlana cheikh alhaji oumar alfouti radiallahu anhu hoto jogi hoto jogo sikkitarine ko cheikhu xam ne yàlla wërsëgal na la nga janoog koo xam ne mooy xalifa mawlana cheikh alhaji oumar xelu ñaar jàppal ni yaa ngi janoog mawlana cheikh alhaji oumar alfouti radiallahu anhu وريتير محمد البشير وني خليفة حنكي تو حنك عراني مونتير محمد البشير نيكون خليفة دير مدودي تتيني نيو كلهم ولي وولي أي مرمن لا موتا موتا بير تاريخ بين خمنا مملا تاريخ سعيد بن نور والمكمي ما خفيا بشيرنا وارث عن جده عمر owinden yimre ko 2008 o watnoɗum to bamako to omo wondi e ceerno ibrahima la nena kasida ɓe mum ko taali fon 2008 to bamako mo guine ka ceerno ibrahima la taw eɓe gummi ziyara kuñakara fekk noni ɓaye ko ziyara kuñakari o wi ceerno saidu nour ceerno saidu nour رضي الله تعالى عنه اتير احمد عمر هارني يوسف رضي الله عنه كان بدل دو نيوم نيار بمي اني سود دي مون مسونيا نبو خلو وي دي تير محمد البشير وكان يوم لو شيخ عمر مسونيا نبو دي جاءنا محمد بن بشير مموت مولانا شيخ عمر او كو جاءنا مكو او كو جنانا مكو نانا كي سرينيام لا كي ويجورم لا تمونه راه مكو بيب كوري اي كونغول غوتول وانكو الله ودي اتيار محمد بن بشير te magam yëpp dëppoo nañu ci benn kàddu ne am na lu ci yàlla defal Cheikh Mouhamed El Bachir te gooto e maɓɓe fof nde haalata ɗum e makko nde kanko ceerno o omo jooɗi jinnaɗo men jawso o ne jooɗi nene ñooni ɓe mbi wax kadduyoy ñoom ñëpp moom ceerno mum ko fekke soni woye julbiɗi jawso momin mum ko fekke gila e ceerno men chairman chairman muntaka ahmed ahmad loolu nag ngi tambali ci chairman muntaka ahmed hay hadi muntaka ahmed gol do ñoro gonɗo ñooro do chairman hadi tal ki ñu wax chairman hadi tal mo ngal lu da mali fof ene andi do ki nga xamne mali yépp xam nañ ko e eh, chairman cheikhu umar muntaka aha e ceerno habibu mum tan aqaha o wi kamɓe fof ɓe duwanino ceerno mouhamadoul bachir nde wonno ceerno mouhamadoul bachir ko kanko tan allah waɗani ngal ɗon gueɗal maga mi yimo tuddu yeb ñaanal nañu ceerno mouhamadoul bachir te nangu nañu ne ceerno am na li ko yàlla defal وي الحمد لله رب العالمين اسكومكم فوف حل امه في به اي به موني غوتو كامي فوف كدي اي به كاوري اي به موني الاس جنرال مكو نينا الحمد لله رب العالمين نجابوتا بي نيوم نيب تيرنا داجي نالين اوف لين تي نيوم نيب نيغو تندو تي كاو ديغلم ceerno Papa Tall ɓurɗo mbiɗe euh, ceerno Mountaga ɓurɗo lollude ceerno Papa Tall ceerno Madani Tall ɗo ha nigéria mali ha soudan kamɓe fof ɓe kumpodiraɓe ceerno mouhamadoul bachir nene ñarni mo tuddu mo geni rewmi moye soudan di mali di nigér fo munaɗen fi jaɓoto cheikh oumar ne ñoom ñëpp nangol nañu ceerno mouhamadoul bachir moutaga ɗa habu molana cheikh alhaji oumar al foutiyu on noon omo ne e laawol omo ara jommo jutedde jooju nag mu ngi ci yoon di ñëw ɗum noon enen fof enen ñaaga ceerno nene ñun ñëpp ñu ngi sakku ci ñun yo en jaɓɓorogo needi nañ ko teero yar o wi eɗen puusodira eɗen duñodira ngam wiide ne salmina ɗum ala foofu ko heɓotoo heen nee na bu jëmmudu teddi ñu wax dañ koy di bu ma xam di puusante noonu nee nit du ci jëriñoo dara ceerno wi en bisimilla leen hannde bisimilla leen janngo ceerno yi dalal ñëpp di leen wax bisimilla tey ëllëg it bisimilla kon lii incha allahu taala imam Moussa imam Abdoul Aziz Fall haj Pam imam Cheybatu mbay mo ngannduɗa ko fof makko ko ɓen jogii jewteɗe inchallah kamɓe fof kadi eɓen ɗo enene turyimo tuddu imam moussa gueye imam abdoul asis fall haj pam maktar imam cheyba mi nga xam ne léppon la ñoom ñoo yere waxtaanɓe te mi o wii ko ɗum o yitno xale bi naatan ne jeewtude neen lii rek la bëggoon ubbee balaa waxtaankat yi ñun soobu ci biir waxtaan wi o wi en calmini en jetti musidɓe ɓe ngannduɗaa ko kamɓe jogii médiaji ɗi ñu ngi sant di gërëm mbokk yi nga xam ne ñoo yore média bi gila e Malikia TV ñu tàmbale ci Malikia TV et 2STV ak 2STV et Asfiya ak Asfiya yi kañun e Safina ak suñu télé bopp di Safina e rajo Tata e rajo liggéey ak rajo bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Tata fële ca Puñakaari ak rajo bi nga xam ne mooy liggéey ñooñu benn bu ñu ko Mali ñaari rajo yi ñu ngi bàyyi ko fële ca Mali. eɓe jokkodiri toon eɗo jooɗi jeegom walla jeeɗiɗi gila ɓe ngari kala ko ɓe ƴetti eɓene jokkodiri e ɓeɗon ñaari radio yimo tuddu ñogi synchronisé ak juróom benn radio walla juróom ñaari radio fo ɗee mali mboolem xibaar biñ fi yëkkati danañ ko jokkok ñoom o wi ko amma ko fayati e bange autorité ji ɗi inchallahu taala jaggoto basto ma hal pam maktar innuɓe lo aluti wallu autorité yi ñoom ëllëg inchallahu taala hal pam maktar dana leen nit ñoom ñëpp o wiigile e policier gendarmerie sappor pompier e den ndangal koruji ɗi pop ma o nimɗi jalɓo so allahu namɗo jaɓi policier gendarme sappor pompier ambinen mboolen koyides yëpp ëllëg danañ leen sant ci kanamu Ceerno bu soobee yàlla caree leen inde hakku ne moon na ngeen tasaare wesaare tur boobu seen diggante caggal moo ninde Allah gannaaw màggal yàlla alaa ko ɓuri jam amul lu gën a baax jam hakku ne e yimɓe aduna ɓe fof seen diggante ak waa aduna bi yëpp kam wondu e jantan e dow jam tan jullit bi yeefeer bi ku baax ak ku bon yow moom na nga ak ci rek ene jangina en ɗum nena limo tamit julli ci boppam def ñu koy sabu saa mawnani saa mawnani allah boo màggale suñu borom bi subhanahu wa taala ko ɗo konngol allahu akbar ɗo ci kaddu allahu akbar jaltirta e njuulu he ndi ngay kenne ci julli gi tan ko konngol jam moy kaddu jam mbiya assalamu aleykum gaɗaɗi wax assalamu aleykum sunna kadi ene jangini yaawi assalamu aleykum bange mananoga sunna yim jangal nam wax assalamu aleykum ci sawallu ndey joor o wiiji yaaɓe arɗa nde ɓe mbi ɗum ɗon jannginta neɗɗo o ko holno wondirte e gurdam makko nitu yo allah eɗeni wakne loolu nan dafay jangal nitki nanɗo wara dunde ar société bi assalamu aleykum bange ñaamo o assalamu aleykum wallu ndeyjorɓe ko kala mo ndenduɗa diine keppu ko xam ne yene bokku diine jogono ɗum jammu nanko assalamu aleykum bangguinana o assalamu aleykum wallu caggal ndi onne oh, jangguinta kala mo arendaani diine ɓeppu ko xam ne boobu oɗen diine jogodir e muɗum jam naga amante moom jam mbele onon fof ke on jam ngir ndax yen ñëpp ngir mun a am jam ɗum noon ceerno ene duwoyo allah waɗen en jam ceerno gi wala jam eleydi ndi mu def jàmm ci réew mi wala jam eɗen ndaanal e ɗeele taaliiɗe leydi ndi mo daadi def jàmm ci mboolem réew yi nga xam de ñoo wër Sénégal e kala juulɗo ɗo waawi wonde taw o yo Allah rokkumo ɗon jam fujul jullit muna nekk ci koye hay so innaani innde leydi yimɓe fof ne nganndi ne doontane tuddul ɓen no turti reew yi ñun ñëpp xam nañu enen noon en ngaraa ko jogitiɗen es alaa ko jogitiɗen so wonaa du'aawu amul lenn loo xam ne yore ko lu dul ñaan te nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wi addu'aawu mumin du'a'u ko jogi taari juulɗo ñammoye gannayi jullit ɗum noon yo allah ruku en jam yalla mi allah defal jammu e nder galleji meɗen so ñibir kër e nder gure men so ñibir dëkk e nder leydi meɗen rew allah waɗa emen barke mo di deftuñen barke e kala ko battiɗen allah waɗa hen barke mboolem li ñu fàggu yàlla na ci yàlla def barke gila e ɓesngu ha e jawdi ha e relation aji fof yo allah waɗi hen barke muy alal muy njaboot muy mboolem relation yëpp yàlla na ci yàlla def barke kala ko heɓa yo allah rokku en fandinde mboolem yi lu ñu mun a am yit yàlla na yàlla may ñu ñu muurloo ko kadi allah rokka en dañde heen allah ci birloolu yin yalla may ñu ñu am ci suñu borom bi subhanahu wa taala jooni noon ceer no woɗɗaani nene léegi ne ceer no soroytul o wii o udditan no tan jiyaaɓe allah ɓee tan defa ɗon ubbil jaamo yalla yi rek jooni noon konngol artee maɓɓo léegi ne kaddugi ɓelɗo waɗna ci en ceer no sahidu so ceer no sahidu so nana jokkonndiri e ceerno on mo ngi jokkok ñoom ceerno o wii so ɓe ɓurii ɓallaade tan ɓuride men ɓe gana jege inchallahu ma o haalani en boneeko yo allah nanani ko wax so haalani en boni ko waxee on sahaa keblolen mbu ko defe juɗaade préparé u yo allah rokku en baraaji e barke jiyo jaɓɓinooɓe jiyaɓe allah ha allah waɗani ɗum en yo allah waɗan en ɗum yalnami yallah may tiyaba amba appayo kiga teeru wonno nitu yallah yallah defal ko loolu yalnan ko defal ñunen ceerno wi en jetti yimɓe ɗegal ngal noon ñu ngi sant dëkkandoogi yëpp ceerno men ceerno yahya ba to richatol suñu sëriñ ceerno yahya ba fale to richatol النار ولي نور على نور لك نور على نور كجور جوني غين انتاخ لي لي لي نوبي تي الوي ييغا خامني موم لا دون تاي غوتو هين كوتاني كو كين تي خالي يدون تاي ستام كو بي سيدي علي با دوله سيدي علي با ali hammadi kumba jagu jogo kumba jogo on ko taaniragel makoro sa sedda goɗɗo one ko taani ko ken kiitamin satan ko ceerno saidu mo ganduɗa ko ɓiyi ko afo ne woye ceerno mouhammadou omo innirimo ceerno saidu ko ceerno bachir mum ko tudde ceerno saidu ko ceerno hamadoul bachir on allah walli ɗum o weeni alqur'ana ko kadi allah timbaɗina ko mo wontuna alqur'an ko jooni jooni ɓe deftiɗo leegi leegi leñu tari fii o wii kamɓe ɗiɗo fof ɓe ɓurani duuɓi sappo walla sappo e goo walla jeenayi seeni at weesu ngol fukki at walla fukka ɓenno walla juroñente at sahaa fof noon allah ene rokka en ɗiɗon fattaŋeji legle ti jamono yalla danañu may xewal yu mel noon ɗiɗa duuɓi cukalel gotel bamma ko ko magistrat omo e heen o reeɗino qur'ana nena aɗa yeweeso ɓenna hale goo xam ne woyjurom magistrat la mu ngi wotto alqur'an fekk atam yaa ngi tollu juróom ñaar ak genn wàll o wi ɗum noon wona kanko ko allah e bakeji duwowuji moɗon ceerno nenen loolu duti momde yalla la ak seeni barke ñaan so tawi a yi ceerno yahya ɓura yalla worsagale ɓe nga gis ceerno yahya ka almuɗo ceerno hamadil bachir taaliɓe gatti ceerno hamadil bachir ka jiɗɗo ceerno hamadil bachir ko bakko ceerno hamadil bachir ولكا تتدرد اتير محمد البشير اكلا بانج باودو وندفو ولا دنگا جوتو دنگا جوكو تي محمد البشير تي انا بومونا دون وفي ساواني سكي ولا تي محمد البشير جيلا ان البودو او اتمال بول في خلو نيار دو تي محمد البشير دا گيس يو تاري دو موتو تاري وفي كانكو او اتير محمد البشير koɓe hunde wootere ɓe gona gueɗe ɗiɗi nene jemmu ndiitoɓe ceerno yahaya mamadou ceerno hamdoul bachir ɓenne jemmuɗa ɗum ɗuñu ñaalo o wi to ɗum woni to noon enen en ganda ɗum nene filen yo allah boole ñune a ah, ñude xam ñuloo enen noon allah addi en en gari en jii ko jiiɗen ko ñun nag yallah wërsëgal nañu ñëw nañu gis nañu li ñu gis moo tax ñu ko téere allah walli en eɗen gonɗini ko jiiɗen ko yo allah yim ɗum ñu dimbali gëmnani li nga xam ne moom lañu gis kadi eɗen jaɓi ɗum ñun ko nangu o wi hayso tawi no poɗɗen gollirde ni hakkudeji men e maɓɓe en gollirɗani noon saabu moƴƴereji maɓɓe e barkeji maɓɓe yo allah rokku en timminde neena donte ne ñun talibé ni ñu wara rafetalé doxal suñu digënté ñoom defu ñuko wala matul ci seeni baax ak seeni ñaan ñu ngi ñaan ci yalla tabarak wa ta'ala yalla ñu yalla lolu wallu ba ñu mel ni ñu wara mel ci seeni kanam o yi ceerno bes bu maane ni ceerno musibe maane ni sa jabota gi ni fof maane ni sa lepp gi ni o sa sabu yemi ngandi ala ko jidda soonaa diine ndax xam nañu yow bëggoo dara lu dul diine ñaagoo allah yoo allah yëpp te moƴƴere ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla fay la ngeen jiiw ko kaalngaa ɗo fof ko goonga mboolen min fi wax dëgg la eɗen njetti allah noon ñu ngi sant yàlla bu baax gadduɗo en hannde haa tawruɗen e jonde nde ki nga xam ne moo ne wommat indi ñu fii tey ba ñu tombeeg jotaay bii taw ko min yitnooɓe ɗum ko ɓoyi fekk yagg nañ ko mibit lu yagg kono wonno emin goɗɗi mo fekk ñun daño xawa sore ko sahaaji tan kadi ɓe ngarata e wuro he leg leg ci jamono la ñu fii ci dakaru dañ jiiɗa hawrude heen tan ɓe donc ñu bëgg fekke bis bi rek mu tëdde leen kono noon jonde nde gila fuɗɗi eɓe guppiti jotaaji ɗumo tambale ba tey seen xenegiti nde wonno ko kamɓe ñeeyi ɗum no mbiruɗani ndax ñom ñoo ko moom comme ni ko waxe leegi walastanu daari man arahu yasubbuhu wala قوله والدم وبل سبه على كل سر سر سره بي ولمه وحسبك ما قد جاء في سورة الفتيح ولجنب الزوار أكرم بي حفظنا بذاك الغد من كل جانب ونرجو به فتحا يدوم مع الرمه بروحه فدعيت المصطفى وقوالبي وارجو به بين الأولى ألا هل النار بدومي من دون سالبه وباب المختار من الصغار آمين في موت معاشر حزبه آمين ومن قصد المحبوب لم يسعد البقيا صلاة على هدي الورى صفائي آمين يا رب سلام بهنا إصلاح خلق لباري إذا الدين لم يكن فلا كانت الدنيا أدين الرسول صلى الله عليه وسلم